test micro test voilà mbokk internet ñi seetaan ci Sénégal 7 TV Sénégal 7 point com ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm euh, ñu ngi ak euh, délégation euh, président Déthié Fall bi nga xam ni kon nag moom tamit daal nay teew ànd ak délégation am ñëw fi nga xam ne rek moom mooy fi nga xam ne moom fii ci kër xalif général de Mourides. Euh, Serigne Mountakha Bachir Mbacké comme ni ko euh, leader yi bëri defee waaye nag ginnaaw ndiki démb nag président de la république Diomaye ñëwee moom euh, président Déthié Fall nag tey jii la fas yéene daal di ñëw ngir mën a rek daal di amal tukki nemeeku fi nga xam ne moom mooy si fii si diwaanu Touba donc ànd ak. ànd ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, donc délégation am euh, moom nag daanaka gannaaw sax gëj nañ ko gis wala ñu gëj ko dégg depuis les élections présidentielles bi nga xam ni moom candidat la woon donc si réew mi ak actualité politique yëpp moom président ci Fall kon moom tamit ndiki tey jii. mu daal di ñëw rek euh, ànd ak euh, ñi nga xam ne tey ñoom ñoo di ay mbokkam ànd ak ñi nga xam ne tey ñoom ñoo di ay collaborateur am waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa parti euh, bi nga xam ne tey moom mooy Déthié coalition tamit Déthié 2024 bi nga xam ne tey gis nañ fi ñenn ci ñoo xam ay leader lañ daal di ñëw rek ngir daal di ziar si nga xam ne moom moo alors le président de la république ziar si ki nga xam ne moom mooy le xalif général des Mourides kon. ñu ngi xaar su côté defee bu ñu daal di ubbee li nga xam ne moom saal bi euh, xalifa bi génn bu disponible rek su côté fee ñu daal di koy dalal moom tamit euh, par rapport ak euh, yenn kàddu yi nga xam ne kon dinañ leen koo dëgtal en exclusivité si kanamu xalif général des Mourides kon ñu daal di xaar su côté fee rek su duggee si biir incha allah ñu daal di leen koy dëgtal si Sénégal jëm kii kii quoi image waaw waaw borom téléphone bi ah borom téléphone borom téléphone boobu donc euh, président Déthié Fall mu ngi noonu si euh, di tàllal loxom si xalif général Serigne Mountakha donc nee nañ ñu ànd ak Déthié Fall tàllal seen loxo. may leen honorable mu dem président Déthié Fall euh, chez le xalifa Serigne Mountakha moom tamit dafa ñëw. ngir euh, saku ñaan donc mu ngi noonu sëgg si kanamu xalifa bi voilà président Déthié Fall mu ngi noonu. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis cette année encore, en bonne santé, d'être là, accompagné de grands responsables de la coalition Noma Ligue et de grands responsables du parti, pour euh, célébrer auprès de notre Khalif général, le Khalif des Mourites, euh, cette journée qui est en vue et qui est une journée de prière, une journée attendue par tous les musulmans, par toute la Oumma islamique, une journée que nous ne cesserons jamais de célébrer à chaque fois que le Tout-Puissant nous en donne l'occasion, déjà en tant que mouride, mais aussi en tant que musulman, et prier pour que ce Magal, encore une fois, avec toutes les prières, que nos compatriotes auront à faire, que la paix puisse continuer à régner dans ce pays. Et tout à l'heure, j'ai rappelé au calife, l'année dernière quand on était là, dans le cadre de Yewi Askadoui, des moments extrêmement chauds, politiquement parlant. Et il avait pris la parole pour prier pour la paix. Et nous avons tous vu ce qui s'est passé dernièrement et qui nous a permis de connaître des élections apaisées et d'avoir un nouveau régime. Et je lui disais que tous les Sénégalais, tous les citoyens du monde vous doivent une très grande reconnaissance. Et j'ai tenu à le lui dire et vraiment se réjouir encore une fois de l'accueil qu'il nous a réservé, des prières également qu'il a formulées à notre endroit. lan ngeen di sant sunu borom bu baax a baax a baax ci lim nu jagleel ñu ñëwaat at bi comme niñ ko yàgg defee ànd ak ay responsable yu nekk ci coalition bi comme Malick ak ay responsable yu nekk ci parti bi ñëw pour célébrer bis bi nga xam ni képp kuy jullit képp kuy murit bis boo taamu la bis boo sopp la bis bi nga xam ni bisu ñaan la di ñaan ci li bis bi digal digle yàlla dolli jàmm ci réew mi léegi rek bi ma toogee le xalif général des Mourides maa ngi koy fàttali daaw bi fi ñëwee ci cadre Yewwi Askan Wi fekk jamono yooyu jamono yu tàng la politiquement parlant mu jël kàddu ñaanal Sénégal. xamal ñu jàmm rek mooy am Sénégal te ñaan yooyu ku gis dernièrement li xew ci Sénégal tolloon jamono bi nga xam ni àdduna bi yëpp doon doon inquiété wu ci li fi am ku gis donc ni mu mujjee xam ni ñaan yooyu sunu borom nangu na ko kon ñu koy gërëm bu baax a baax a baax di sant encore une fois ñin fi fekk ñëpp.

ok président waaw.